جابر من أنت حبيبي وخليل بالحكم جبيبي asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu sante yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallama di sant seexul xadim xaadimu rasul suñu yaakaar tey ëllëg di ñaan Seex yàlla na fi yàlla lool te wéral ko te kàttanal ko lañ koy ñaanale xalifa suna roy ci Sénégal gépp ñaan Sénégal yàlla yàlla def jàmm te saxal ko fi noonu lañu koy ñaanale ci àddina bépp jàmm di nuyu monde entier yëpp bu ma koy wax mooy diaspora bi France Italie Espagne Allemagne Angleterre Hollande Portugal fépp bàyyiwuñu fépp Afrique du Sud ba ci asiatique sii nag fépp rek ñu ngi nuyu monde entier ñëpp rek ñu leen nuyu di nuyu Sénégal gi ñu nekk nii di nuyu waa Sénégal gépp rek ñu ngi nuyu waa mbokk yi seen mbokkum taalibe ci seen mbokkum jullit seen mbokk ci lépp ñu ngi wax sëriñ Maxtaar si moo leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax di leen laaye biir ci xam-xamam bu sell bu wóor bu wér xam-xamam boo xamante ni da koo xam jàng ko doon na ko ci ay maamam ba pare yemul foofu tam mu gëstu dem fépp ci àdduna gëstu bu baax a baax moo leen di nuyu di leen fas yéene laay biir ci xam-xamam xam-xam bi nag mooy li nit ñi woo rek ci jamono jeeg lépp rek lépp lu nit di soxlawoo rek yàlla defal nañ ci tawféex yor nañ ko xam ko doon na ko ci suñuy maam gëstu ko tam mi ngi fi muy lu wóor nag lu wér ñu teg ko ci siraatal mustaqim lépp loo xamante ni nit a nga ko yittewoo ci wàllu liggéeyam ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëgam muy wàllu bu ñu wax wërsëg rek mooy ubbeeku ubbeeku moom bu amee moom ci la lépp nekk yàlla dimbale nañu defal nañu ci luñ ci man lool sax kay buñ ko dee wax nag mooy wàllu bayre bayre moom yàlla defal na ma ci moom dama ko mën lool sax moom naa ko trop sax dama ko mën lool bayre bayre boo xam ne nag yëmut ci bayre kese rek bayre ubbeeku lañu wax ci lépp looy yëngu rek bëgg ci am ak ubbeeku nit ñi di la dikkal bu baax ba loo jaay mu jar yàlla defal nañ ci ay taw tawféex bu baax baa ba mën nañ ko lool alxuraan nag yaat na lool tëree nag yàlla xamal nañ ci bayre yi ci nekk yëpp ay yi nga xam ne ni daa composé ak bayre yëpp te ne ci alxuraan xam nañ ko bu baax a baax aay lañ jël boole ko garab yi nga xam ne ni moom lañ gëstu ci wàllu sungu fi bayre garab yi bayre yépp ñu boole ko mooñaale ko baatin boobu yor ko fii nag ko ñu jëf lañ jëflanteel nag moom lañ lay liggéeyal defal la sangati bayre yooyu te sangata bayre yooyu yëpp nag bu ci nekk nag yi ci nekk nag dafa am ay parfum yu muy war a àndal spécial wala curaayam yu muy àndal spécial waaw bayra boo gis rek càngati bayra boo gis rek gannaaw bi ñu defee composé baatin bi ak sungu fi garab yi bayra yi ba noppi dañ la ciy defal curaay yi nga xam ne moom la war a àndal normal spécial ak parfum yi muy war a àndal da koy sangoo bu ko defee nag macha allah yàlla dina dimbale lépp looy yëngu rek bëgg ci ak ubbeeku rek danga ko am bu baax a baax waaw ci wàllu commerce bi bu fekkee da def import export di dem di voyage yi loo jaay mu loo indi mu jar conteneur boo indi mu jeex boo ma boo ñëwee ma jox la samay bayre macha allah boo ko sangoo loo indi ci bagage day jar soo yoree place di jaay boutique nga yoree ak lu marketing boo mën a jaay rek ci wàllu commerce looy yëngu loo ci jaay rek commerce bu mën a doon rek moo xam lu ñu lekk la wala lu ñu sol la wala lu mu mën a doon rek Euh, suñu bayre yi may bayre yi nga xam ne moom lay liggéey te yàlla man lool man loo ma ko nag lool nag dama ko man lool moom bayre xam ko tax jàng ko yooyu yëpp boo ko defee euh, looy yëngu lu ne rek ak looy jaay lu mën a doon rek boo ñëwee ñu jox la ci bayre yi bu ko sangoo yi lépp looy jaay day jar waaw comme ni ma ko waxee rek lépp looy jaay moom lu ñuy lekk la wala lu ñuy sol la wala lu mën a doon rek waaw ba tey ci Bayer laa wax yéen bu dee da ngay jaay yëngu ci wàllu immobilier ay kër ngay jaay wala ay terrain yi ngay jaay wala da yëngutam ci wàllu parking oto nga yore di jaay ay oto te bëgg nga oto yi di dem bu baax a baax ba a yàgg sa parking waaw jëflante bayre yi ñu jox nga jëfandikoo ko def ko ci la ngay jaay bu soobee yàlla incha allah léppay jar. bu dee kër gooy jaay wala oto booy jaay lu mu mën a doon rek lépp dana jar bu soobee suñu borom. am na ci itam beneen façon bayre yoo xamante ni itam soo yoree say magasin ak lu mën a doon rek am na ci loo xamante ni dañ koy liggéey wax naa ko ci samay émission bu koy liggéey ci bopp mala am na la ma koy ñawee jox la ko nga def ko sa biir place soo ko defee nit ñi duñ fa jóg waaw loo jaay day jar nit ñi danañ lay dikkal bu baax a baax loolu nag yëmul ci képp kuy yëngu ci métier mu mën a doon rek su dee da yëngu ci ministre bois wala ministre aluminium wala ministre fer wala métallique wala nga yar salon de coiffure wala lu mën a doon rek wala tailleur bi da ngay ñëw bëgg nit ñi di la dikkal bu baax lool itam buñ la ko liggéey la jox la nga def ko sa biir place sàllaaw nit ñi dañ lay dikkal bu baax a baax a baax dañ lépp itam ci andi bayre la nañ ko su dee itam da yëngu ci li ñu wax wàllu folklore maanaam ab artiste nga am naa ci ay bayra yoo xam ne tamit buñ la ko joxee boo ko sangooyee itam macha allah ci li nga yëngu ci wàllu aar boobu itam tubaarkàlla foo woote itam day fees dell bu dee jàngkat xaside bi tam loolu itam moom allah waaw euh, bu dee itam maanaam. am na yeneen i façon ñaan yoo xamante ni bu dee da ngay yëngu ci wàllu sportif tam bëgg doon professionnel football yi bitim réew am na yoonu ñaan woo xam ne ni buñ na ko ñaanalee ci ñu lay jox nga songoo ak yoo xam ne ni ci wàllu course lay doon boo demee defee test boo demee dem bitim réew def test test bi dana jàll bu baax a baax da nga da ngay réussir waaw doo ko def sax benn doo ko def ñaari yoon booy dem booy dem rek booy dem rek def test bi benn yoon rek day day day baax waaw loolu moom te lu ci nekk nag lu wóor la jarbu nañ ko def nañ ko defati ko defati ko ñaanal nañ ci ay nit ay du benn du ñaar yàlla dañ ci defal ndam nag yàlla ngi defal ndam ndax li ko waral mooy niñ ko waxee woon ci tàmbali wax bi xam-xam bi xam nañ ko jàng ko mën ko doon na ko ci suñu maam yëpp waaw doon doomi soxna piir waaw bu dee tam da nga yëngu ci wàllu basket tam noonu la demee comme sport bi rek comme football bi basket bi lépp rek loo ci yëngu rek bëgg cee jàll fenn fenn si rek bëgg ci réussir rek incha allah am nañ ci ay yooni ñaan yu am solo yoo xam ne nii kuñ ko ci defal soo defee test rek incha allah da nekk ci kël bi ci kawe yi uh-huh. bu dee tam koo xamante ni te boo xam bu dee ñi nga xamante ni ñu ngi ci diaspora bi toujours uh, damay waxtaan ak ñoom lu bare bare ñi ne ci diaspora bi tam noonu te yàlla dimbal nañ ci li ñuy ñaan ci wàllu diaspora bi mooy la leen di yitteel te soxal leen te ñuy yàgg ci àll bi lool muy wàllu këyit séjour këyit ak ay contrat yooyu yooyu moom secret bi ñu si yor moom macha allah moom moom ku nekk ci àll bi am jafe-jafe këyit lool boo moo bu buñ buñ buñ déggantee ñi yàlla daf taw fex ba soo dugalagut këyit boo ko dugalee da nga am ay këyit su fekkee da koo dugal jox ko ab avocat mu koy lijjanti te mënut a fexe ba sotti avocat bu ñu déggante incha allah dana sotti dana gaaw da ngay am ay këyit léegi waaw bëri na ñoo xam ne loolu seen seen tawat la seen seen seen jàmbat lañ ne ci àll bi def ay at yu bëree bëri te mënuñu am këyit séjour waaw loolu moom am naa ci secret boo xam ne nii moom ndono la secret ndono la mu ci samay membre ci sama wéjur secret boobu moom képp ku ci ñaanal moom ci koy am ci àll bi bëgg séjour tam nekk yàgg ci àll bi loolu mën a am këyit moom am këyit da am contrat booy liggéeyee waaw loolu suñu borom defal nañ ci ay tawféex bu baax a baax a baax incha allah rabbi bu ko defee tam euh, ñi nga xamante ni tam ñi ngi jàng ba noppi ba nga jàngee ba noppi euh, bëgg a liggéey te mënu koo liggéey yoo xam njàng moo jàng rek moo xam banque nga war a liggéey wala assurance nga war a liggéey wala fu mën a doon rek ci société bu mën a doon ci sa xam-xam bi nga jàng ci li nga war a liggéey ma soxla moom mooy CV yi boo ma joxe CV yi def ci liñ ciy def jox la la muy àndal nga war ko sangoo bu ñu joxee boo ñu joxee CV yi ñu def lañ ciy def jox la lañ lay jox nga sangoo ko nga jël CV yi déposé CV yi nag moom boobu ñu ca paree nag moom ba jox la bañ jox la jox ko sang ko fu la neex nga déposé kayit yi fu la neex yóbbul déposé fu la neex yóbbul déposé foo yóbbu déposé danañ la woo nga liggéey ñi nga xam ne ñooy jàng ba noppi te seen seen seen seen métier njàng moomu ci ak marketing bañ def waaw suñ paree ci boo ñu joxee CV ñi def ci lañ cay def jox la la ngay sangoo fu la neex yóbbul déposé waaw incha allahu rabbi danañ la woo nga liggéey waaw ci ñi nga xam ne ni ñu ngi ci ñu ngi jàng ba noppi te mën a guñoo liggéey te yori diplôme seeni mbir yi mi ngi fi sax te yu sax yu wéer seeni mbir ñu ba noppi liggéey te mënuñoo liggéey ñi nga xamante ni tamit dañuy yëngu ci entreprise bu mën a doon boo yëngu entreprise boo mën a doon boo boo tam bëgg entreprise bi dox te entreprise bi xaw a sooxe lool sa doxut ak lu mu mën a liggéey entreprise ba lu loolu lañ jokkoo entreprise ba dana am yu ñu fay def ak yu ñu la jox nga def ko ci entreprise bi entreprise bi dana dox lool su da ngaa bëgg ay partenaire ak yëpp muy moom dana dana kawe lool sax moom entreprise ba da nga am ay partenaire entreprise bi dana dox lool sax waaw léeg-léeg nga gis ci entreprise yi am jafe-jafe ci yu demee noonu ci ñàkk dox gi am nañ ci ay ay tegtal yu am solo sax yu am solo sax ci wàllu entreprise entreprise boo xam ne dafa ñàkk dox am nañ ci ay tegtal yu am solo solo yoo xam ne ni moom moom suñ la defalee tegtal yi jox la li ñu lay jox nga def ko ci entreprise bi tegtal yi su bi suñuy borom incha allahu bi entreprise bi dana dox lool waaw da nga am ay partenaires ak yëpp allah rek loolu tam ci xam-xam yi nga xam ne yàlla defal nañu ko ñu xam ko jàng ko mi ngi mi ngi fi waaw bu ci ñuy yëngu ci média bi tam ak média booy yëngu rek wala nga nekk koo xam ne taskatu xibaar nga bëgg sa liggéey yokk lool nga bëgg a yegg yenn fenn yi am nañ ci am solo yoo xam ne ni yor nañ ko yoo xamante ni sa média dana dox li ngay bëgg lépp ci média bi day am da nga am ay promotion lu ne daal média bi daal jëmmi média bi yokku daal da nga ko def bu baax képp kuy yëngu ci média wala ngay taskatu xibaar bëgg a yëg yenn fenn yi daal am na ci xam-xam yi comme ni ñu ko waxee rek ñi nga xam ne nii xam ko jàng ko gëstu ko doon ne ko ci suñu maam te gëstu ko fépp xam-xam yooyu mi ngi fi ci lépp loo yow mi yëngu ci wàllu ci ci société yooyu rek ci wàllu média beeg wala itam yëngu ci média comme niñ ko waxee léegi ci kuy ku yor société yëpp rek itam yooyu yëpp mu ngi fi tam boo ko defee lu ci nekk boo lu ci nekk boo ñëwee dañ la ci laajale biir jox la ci ay tegtel ak looy jëfandikoo nga sa média da dox lool yow mi yëngu ci média tam sa liggéey dox lool incha allah rabbi waaw ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ba tey comme ni ma ko waxoon ci sport bu mën a doon rek te bëgg ci yegg fenn yi rek hmm, yàlla may nañ ci ay ay may yu am solo yoo xam ni buñ la joxee lañ lay jox ak tegtal yi te la ngay yëngu ci sport ba incha allah da nga ci am lu kawe suñu yor bu baax incha allah rabbi di yokkaat tam lépp lu nit yittewoo ci jamono jiñ toll nii ci wàllu yokkuteem ci wàllu liggéeyam muy wàllu ubbeeku wërsëgam léppam incha allah tegtal yi mi ngi fi xam-xam yu leer nañ yu wóor di xam-xam yu mag ñi mi ngi fi ko defee kuñ ci jox nga jëfandikoo ko tegtal yi incha allah danga gis sa bopp lool sax ci ci liñ la jox incha allah da nga ci gis sa bopp baax a baax. di ci dolliwaat tam soxna yi nga xamante ni ñu ngi ci biir néegu sëy léeg-léeg mu am ay rëng-rëng ak yooyu lu mën a ñàkk waaye am nañ ci yoo xam ne ni uh, wàññiwu dara mag ñi dañ ko daan def du ko defee lu la jubaleeg sa borom kër bu baax a baax a baax a baax te yu wër sax yu wér yëfi mag ñi lu jubale sa borom kër yëpp macha allah moom itam mu ngi fi ko yàlla dimbale boo boo ñu déggee nga ñu mën na see jox ay tegtal ak yu ñu lay jox nga jëfandikoo ko da nga jubóog sa borom kër bu baax a baax ñu allah rabbi bi dem benn jafe-jafe seytaane du mën ci yan dara ñi nga xamante ni itam yàlla joxagu leen ko amaguñ borom kër itam. am nañ ci fàndu bayre yoo xam ne ni moom bayre ñu amul bërëm kër na ko joxee tam nga sangoo ko incha allah téere bi ñu lay jox yàlla dana la dimbale da nga mu ne léegi ku baax waa ji baax waaw am kër bu baax waaw ko defee nag waaw noonu noonu noonu rakk la ñi nga xamante ni ñu ngi faral di yëngu ci wàllu géej waaw léeg-léeg nga gis ñi comme wàllu géej buñ ko buñ ko day wax mooy yëngu ci wàllu sam ko maanaam poisson jën bëgg yegg yenn fenn yii wala nga yor sa gaal léeg bëgg dem boo demee maare yàlla may lay xéwal yu bëree bari ci wàllu la ngay wut ci wàllu jën ak yooyu tubaarkàlla am nañ ci itam ay yoo xam ne ay tegtal la yoo xam ne buñ la ko joxee nga jëfandikoo ko incha allah bi rabbi doo am benn jafe-jafe ci ci ci ci ndox mi da nga dem wuti la ngay wuti ñëw ci jàmm ak salaam waaw ah, alhamdulilah ngi fii am solo la waaw yu sax ah, yoo xam ne kuñ ko jox itam da ci gis sa bopp baax lépp loo xamante ni daal eh, nit a nga soxla woo rek ci wàllu yokkuteem. avancem ci liggéeyam wala wërsëgam beeku gu yaatu lépp mu ngi fi comme niñ ko waxee noonu ci ndorteel rek waaw loolu yëpp mi ngi ci koy yëngu ci commerce doon import export loo jaay mu jar wala nga yor sa magasin wala sa boutique lépp lu moo lu moo am nañu ay bayre yu bëri yoo xam ne ni façon yu bayre lañu bëree bëri yoo xam ne moom buñ ci jëflanteel jox la li ngay jëfandikoo incha allah da nga ci gis sa bopp bu baax a baax baax ci li ngay liggéey. ak liggéey boo yor rek mën a doon nag ba ci ñiy def métier itam nañ fii itam yoo xamante ni itam ñu ngi ko daan liggéeyee jëlee woon xam-xam bi tam comme ni nga ko waxee rek ci suñu maam ak suñu bañ ak suñu lu mel ni tam li ñuy wax benn kaaraange la boo xamante ni dama koy defar dama koy defar kaaraange goo xam ne ni sengoor la sengoor gi nag moom Senghor gu am solo la waaw lu jëm ci fetal ak paaka ak jaas yi lépp jëm ci weñ googu du la du dugg fenn soo ko amee bu ci bu la nit doon jéem a defal leen def leen ci loo mel noonu fetal wala paaka wala jaas yi du mën ci yaw dara Senghor googu moom mi ngi fi gu am solo la lool sax ñu jëlee ko doonee nekku ci suñu kilifa ba mu yegg si si ñun Senghor googu mi ngi fi gu ko soxla Senghor gu am solo la waaw. samarug lépp lañ te boo ko takkee tam di voyage doo accident ci dara ñoo xam oto la wala avion wala lu mën a doon waaw mu ngi fi alhamdulilah ci ci yokkaat ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu politique yegg fenn yi wala ku la fal ndombal tànk am nañ ci ay xam-xamam moom tam xam-xam yu leer yu wóor yu wér yoo xam ne nii ki xam-xami mag ñi la ñu yor ko te nga yëngu ci wàllu politik bëgg say activité politique dox lool wala nga bëggal falu ndom ñu fal la ndombal tànk am nañ ci secteur yoo xam ne ni mi ngi fi am solo yoo xam ne nii yéen fi mag ñi la. kuñ ko defal danga nga àgg fenn fi ci politique bi nga yëngu wala bu dee da bëgg ñu fanal ndombal tànk itam incha allah rabbi fal yooyu yëpp yooyu yëpp mi ngi fi waaw ci muy xam-xam yi da nga yëngu ci ONC booy yëngu toog association yooyu yëngu bëgg association yi itam association fekk nga association mu dox bëgg association bi dox lool àgg fenn fi yooyu yëpp itam incha allah am nañ fi ay xam-xamam yoo xam ne nii mag ñi la fa nga bëgg sa association bi yegg fa wala sa ONC baak yëpp rek dana danga yegg danga dana àgg fa nga ko bëggee kii ñu lay jox ak yooyu rek tegtal yi kii ma ngi waaw bu dee comme ni niñ ko waxee rek tam da ci politique bëgg yëg yokk yokk ci lool da nga yëg ko wala nga bëgg fàllu yenn ndomba yi incha allah am na ci ay tegtal yi am solo ñu ci yor yoo xam ne yëf mag ñi la ko defee danga ci gis sa bopp bu baax a baax ci yéen ngay yëngu bu fekkee itam maanaam koo xamante ni liggéeyam daa doxoon lool yàlla def liggéey bi doxatut mu bari jafe-jafe lool nag lu ko defee danañ ko xool xool ay mbiram xam li waral li tax yëf takk tàkk yëf yi ko defee bu dee luñ ko def la am na ci liggéey yoo xamante ni mi ngi fi yoo xam ne tam mooy loolu ñu nekk comme ni nga ko waxee rek ci xam-xamu mag ñi la ñu ngi ko yor buñ la ko defalee lépp loo xam ne ni luñ la defoon la lu ne sa yaram ak bërëb ba nga doon liggéey lépp lépp day toj foo jubluwaat dana baax lool sax jubluwaat dana baax léeg da ciy am nag nga am sa liggéey doxoon lool doxatut waaw nag daan gañe gañe too ko mel ne yooyu yëpp dañ koy xool rek dee ay def-def la ci liñ la def wala yàq-yàq dañ danañ ko dindi dañ dindi sa yaram ba mu set wicc waaw bu ko defee ngay say mbir mën a doxaat bu baax a baax yooyu tamit incha allah rabbi xam-xam mag ñi la mi ngi fi waaw kon ñu ñu ngi leen ñu ngi nuy ñu ngi tàggoo kon di yemale fii waxtaan wi di nuyu àddina bi yëpp di